Euh, professeur du ñu terminé te waxuñu cas Guy mari Sagna ñu jàppoon ko moom ak yeneen naataangoom yi nga xam dañ doon def manifestation contre la hausse du prix de l'électricité moom ak docteur Babacar Diop ak ñeneen ñoo xam ne ay étudiants ñu jàppoon leen ñu libéré leen ba ginnaaw bi euh, Guy Marius Sagna rek moo des ci euh, kaso bi yow loolu ban gis-gis nga ci am. waaw de def naa daal loolu moom loolu lu amul yoon. Ah. Euh, mën mën nañu jàpp gi Marius Sagna ak ñeneen ñu bàyyi ñeneen ñu ñu tëjee te te te Guy Marius loolu moom yoon mënu ko xel na mënu nangu lool ah bu dee justice dëgg dëgg dëgg dëgg soo bàyyi ñii da war a bàyyi Guy Marius léeg-léeg nag defe naa loxo politique mu ngi ci décision boobu ah que Guy Marius euh, acteur société civile la mu ngi xeex euh, euh, mu ngi xeex te jóg na pour xeex contre augmentation de du prix de l'électricité defe naa ñoom dañu bëgg a punir dañ ko bëgg a en ah, punition la pour man pouvoir gouvernement bi dafay jéem tey ji punir gi maris Sagna pour décourager ko ci ci ci ci xeex bi bi mu bi mu bi muy xeex décourager aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci gannaawam euh, defe naa daal euh, bu dee justice nañ ko libérer c'est loolu mooy yoon nañ nañ ko libérer parce que amul benn infraction bi mu def ah c'est quelqu'un ki nga xam ne am na jël na responsabilité am protester jël na responsabilité am dem marche même bu demee bu palais du nit ki nga xam ne day offenser président de la république personnellement dafa mener benn action symbolique parce que président moo jël euh, décision bopp donc justice aussi warul dugg ci ay affaire politicien loolu mën na mën na mën na yàq image euh, justice bi. mais est-ce que euh, détention boobu noonu est-ce que du gàkkal démocratie bu Sénégal au regard de l'opinion internationale. mais bien sûr soo xoolee soo xoolee tey jii. Euh, Guy Guy Guy Marius Sagna la la coow ci réseaux sociaux yi à l'étranger c'est la même chose même rapport bu mu bi ñuy génn sur la démocratie sénégalaise wane nañ ko am na recul que muy élection muy liberté publique et Guy Marius Sagna suñu suñu moytul euh, lu danoo lu daloon yeneen régime yi loolu moo nar a dal euh, Macky Sall c'est c'est-à-dire que dafay perdre crédit crédibilité Sénégal soo soo ak image soo moytul dina dina wàññeeku parce que am na ñu jàppale Guy Marius ñu ngi France am na ñu ko jàppale ci Afrique am na ñu ko jàppale États-Unis euh, donc euh, symbole et c' euh, comme ni ñu ko waxee c' est un alerteur soo ko téye en prison parce que da nga ko bëgg a téye pour punir ko mais mais loolu day wàññi image image démocratie Sénégal. détention bi Guy Marius Sagna Sénégal la doon xeexal. ngir ñu wàññi njëgu courant bi tey jii gis nañ sénégalais yi ñu ci bëri waxuñ ci dara est-ce que nekkul ni Sénégal dañ koo seetaan ci combat bi nga xam ne moom la doon mëne non seulement pour lui mais pour tout le peuple sénégalais. waaw xam nga euh, Guy moom militant la dafa yàgg dafa yàgg xeex bon am responsabilité personnelle xam na ne que lii warul am mu jóg bon léegi nag sénégalais yi aussi c'est vrai ñoom ñoo tax. askan bi moo tax di di di xeex wante sénégalais aussi euh, defe naa am na fu ñu jaar ah boo gisee ñu ne teg bokkuñu ci manifestation yi bokkuñu laajuñu euh, libération Guy Marius Sagna euh, comportement la citoyen c'est-à-dire que pour pour le moment ñu ñuy xool ba xam fan la nguur gi nar a jëm ah sénégalais du nit kuy réagir comme spontané c'est rare c'est rare mais euh, dañuy dañuy xaar ba xam exactement augmentation bi naka la nar a tëddee ban effet la la nar a am lan lay entraîner parce que dina entraîner augmentation yeneen denrées bon dina entraîner aussi perte de crédibilité du gouvernement euh, en général sénégalais fi ñuy jaar en tout cas depuis 2000 ba léegi fi ñuy jaar mooy sanctionner la sanction politique euh, soo xoolee avant 2000. Euh, le marche moo gënoon yomb ci Sénégalais yi muy étudiant bi muy enseignant bi muy syndicat moo gënoon yomb nit ñi dañ doon euh, marche mais daawuñu sanctionné politiquement ci élection mais depuis mille nit ñi dañuy xool gouvernement bi def lu lu muy def mais suñu naree jub duñu duñu tàggoo réaction spontanée lay lay nekk et je crois que sénégalais yi. bon euh, en tout cas mën na am réaction spontanée fii ak euh, quatre ans parce que Macky Sall quand même léegi la falu dese na quatre ans bon beneen euh, dimension bi mooy que ñu ngi jëm ci élection locale ah élection locale c'est-à-dire gisuma Sénégalais yi tànn benn maire bu ne nañu yokk courant bi c'est-à-dire nekk contradiction bu rëy mais gouvernement bi suñu moytu Euh, seen candidat ci élection locale ak législative soo mooy dinañu am problème en tout cas ci dundin bi ku ki nga xam ne euh, du défendre euh, dundin sénégalais yi amélioration de condition de vie soo moytul di soit ñu sanctionné la c'est c'est fort possible que ñu sanctionné Macky ci ci ci courant bi parce que bu ñu fàtte ne courant lu mu ëmb dafa dafa dafa dafa bari nit ñi suñu gën a sonn mooy ci ci courant surtout euh, courant euh, muy euh, travailleur bi muy opérateur privé bi ñoom ñëpp ñooy sentir su amee augmentation noppi bi nag xëy na loolu la tekki que ñuy waaj xaar impact réel augmentation bi mais également su ñu xaar élection bi et je crois que aussi bon ci suma xalaat Euh, gouvernement bi nu mu téye Guy maris nii baaxul ci moom ah parce que daf ko gën a discrédité et loolu loolu mooy indi tension permanente et soo xoolee bu baax a baax ñu xal yi rek ñooy dem protester ñooy def marche. mais est-ce que boobu ñu téye Guy Marius Sagna itam euh, gis ñi ni mu xawee jage euh, Ousmane Sonko. ndax loolu bokk ci li nga xam ni moo tax ñu téye ko. non mooy punition bi. ça c'est-à-dire que Sonko ba léegi téyaguñ mënu mënaguñ ko téye amuñu fu ñu jaar pour téye ko mais téye nañu gi mooy mooy punition bi ça exemple la pour ñi nga xam ne ànd na ak gi mais ak exemple aussi pour Sonko la loolu loolu mooy euh, euh, en tout cas signal bi c'est c'est clair c'est c'est clair que mën nga wax lu la neex euh, mais bés bu ñu amee occasion tey la mais dinañu tey Sonko def comme ni ñu defee xalifa comme ni ñu defee gi donc gouvernement bi c'est sûr et certain que nu mu tee gi bon expérience la pour moom pour pour. dañu bëgg dañu bëgg alerter Ousmane Sonko moo tax ñu téye ko. Sonko rek mooy mooy boo xoolee situation fi ñu nekk ni tey jii euh, Macky Sall amatul état de grâce amatul amatul état de grâce moom jeexal na ci mu ngi ci deuxième mandat ñëpp ñu ngi xaar réalisation yi bon. Euh, et Macky xam na ni que contestation sociale baaxul ci deuxième mandat bi donc li muy négocier tey jii mooy mu am dialogue mais beneen côté bi ki nga xam ne dafa repp pour pour aller à contre-courant c'est sûr que dina réprimer donc alerte la pour euh, Guy pour Sonko pour ak ñeneen ñi nga xam ne mooy syndicat yi ah euh, c'est sûr et certain que que le du du nar a négocier contestation sociale ah euh, loolu euh, lu mu def euh, gii parce que dem na ba ci palais mu ngi koy punir c'est sûr et certain suba quoi amee ñu jóg pour brûler oto wala pour def violence ci ci yoon yi c'est sûr que Macky dina dal sa kaw et loolu alerte la soo xoolee sax situation schéma Sénégal ni mu nar a évoluer même troisième mandat bi ah ça test la. ah c'est sur et certain que dina am ñu ñu ñu su waxoon tey jii day laaj troisième mandat violence lay indi et c'est sûr ni mu téye gii wala ni mu ko nar a réprimer nii mais dina réprimer aussi ki nga xam ne day day bañ euh, troisième mandat bi. professeur donc euh, lan mooy ce mot de la fin. waa de di la remercier di la remercier def na waxtaan bi moom euh, violence lu am solo la ci ci Sénégal pour yeete aussi nit ñi loolu loolu lu baax la maa ngi lay féliciter. di wax ne aussi que génne naa benn livre bon ci euh, système éducatif bon euh, bon ci livre bi en tout cas ci suñu discussion nii nii man maa ngi gëstu ci éducation traditionnelle saa ba léegi euh, ci lu ma gis bind nañ du bari ci éducation mais toujours éducation système éducatif français bi rek lañ doon gëstu man dama xam ne euh, nu ñuy gëstu euh, situation système éducatif français bi dañu war a gëstu suñu système éducatif traditionnel dañu war a gëstu suñu système euh, arabophone ñett yooyu daal defe naa suñu amee chance xëy na un jour dinañu waxtaan ci ci livre boobu quoi di le remercier mutation de la société sénégalaise merci merci bien Khady